Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cissé principal du CEM El Hadj Amadou Ba Sampaté ex Diamaguène à Thiès. Euh, toujours mbir moo xamee ne ñaari ñoo ko seq foog ñaari ñooñu du ñu mën a kenn du mën a dem bàyyi sa moroom donc foog ñuy toog di waxtaan. waa parce que euh, waxtaan euh, ñu mooy jur toujours njëriñ am nga benn bindkat dafa mos wax ni mu ni la dans une conversation. Euh, l'élément mâle, c'est la question. L'élément femelle, c'est la réponse. De leur union naît toujours un fruit. Et que nous sommes dans un monde, on est obligé de dialoguer, on est obligé de se concerter, de partager. Donc, euh, du dialogue, du partage, de la concertation, naît toujours euh, un fruit. Et, et ce fruit-là, euh, c'est la réussite. Euh, dafa am loo xam ni mbiru droit syndical la mais jàpp nañ ni daal euh, liggéey bi euh, lépp lu koy avancé loo moo gën lu koy delloo gannaaw waaw ah, te yàlla def na daaw am nañu une année vraiment paisible ren aussi xëy na bu ñu waxtaanee juboo dana am te ju mais bu juboo amee mais njàng meeg li ci aju yëpp. Euh, dana mën a am ci anam bu rafet rafet. xam nga boo xoolee année boo xam ne dafa bari ay grève euh, souvent dafay am un impact négatif sur les résultats waaw moo tax boo xoolee daaw wax dëgg yàlla ça a été une année euh, paisible moo tax boo xoolee les résultats aussi ont suivi donc am nañ yaakaar ne aussi cette année puisque on a démarré tôt que au bout du fil on aura quand même des résultats probants mais pourvu que toutes les parties se concertent toutes les partie quand même euh, xam nga euh, dañuy wax ni euh, parler est un besoin mais écouter est un art donc il faut toujours waxtaan di am parce que waxtaan bi am ñuy bokk di toog ku ci nekk wax li nga xamee ne yow moom nga gisee bu ñu dajalee xalaat yëpp rek dafay nekk ay xalaat yoo xam ne nii mën na jëmalee jàng mi kanam mën na jëmalee réew mi kanam incha mais jàpp nañ ne xëy na mënoon fi mënoon nañ fi bañ a yegg si sax waaw parce que boo xoolee vacances yëpp occasion la woon pour mën a toog euh, waxtaan pour nga xamee ni bu ñu duggee ci année bi dañ ciy dugg rek euh, daal di mën a euh, me dem sur des bases solides et puis arriver à bon port kenn bañ teg buntam ku nekk ubbi say bunt ñu bokk toog ku ñu woo ci négociation nga dem te euh, négociation aussi euh, waxtaan rek am na loo xamee ni day mën a nekk léegi am loo xam ne day mën a nekk à moyen terme am loo xam ne day mën a nekk à moyen terme ah, résultat yi nga xamee ni jot na am résultat yu yu am solo la yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn du ko euh, naatable donc am nañ yaakaar ni nag ah, ndollent Euh, toujours képp kuy liggéey da ngay bëgg am yokkute ci li ngay liggéey mais aussi da xool li nga xamee ni moo mën a nekk euh, li mën a nekk tey ñu def ko li mën a nekk ëllëg xaar ëllëg li mën a nekk gannaaw ëllëg xaar gannaaw ëllëg. ah xëy na baat yi diis na. waaw ah, école euh, morte am nga problème concept la rek waaw ah, problème concept la xëy na peut-être à la place de morte leneen mënoon dafa fa nekk waaw lu may morte. waaw parce que xam nga euh, mort aussi euh, après la mort euh, bon <laughs> on peut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il après la mort parce que boo nee école morte c'est comme l'école dafay am foo xam ne dafay wéeru te du fa du fa donc te école doxewul noon daal parce que l'école c'est un milieu boo xam ne ni donc c'est un espace bu war a nekk espace euh, d'éducation espace d'enseignement apprentissage et euh, espace d'épanouissement mais aussi espace de de dialogue euh, de concertation. tey nag dafa am lu xewati ci réew mi muy xëy bañ a jàngale wala xëy bañ a jàng ji te ñun ñëpp ñu di ay waajur bu dul loolu sax ñu di ay citoyen bokk ci réew mi. ñu xam njàng li mu doon ci aw askan ci aw am réew kon su lu mel nii xewee war nañ ci yëkkati suñu kàddu àddu ci wax ji nag ñu ngi koy jëmale ci suñu bopp d'abord ñun parents d'élèves yi nañu taxaw njaboot gi nañu tette njaboot gi nañ leen encadré nañ leen teg ci yoonu njub ak jubal ndax bor la bu ñuy fay li ñu suñuy waajur defal ba ñu taxaw fii tey xaw a xam xaw a man ci suñu bopp nañ ko taxaw suñu njaboot. beneen bi tamit mooy jàngalekat yi ay citoyen lañu ay sénégalais lañu ay parents d'élèves lañu suñu leen dénkee njaboot nañ leen jàngal nañ leen toppatoo nañ leen encadré parce que sa ndono kenn du ko caaxaane kon nañu taxaw ci jàngal xale yi nañu taxaw ci toppatoo xale yi. am réew njàng ko yor te tax na tey jii ñoom ñu nekk fa ñu nekk kon nag nañu jox xale yi chance beneen bi mooy la gouvernement ñoo yilif ñiy jàngale ñoo yilif ñiy jàng yilif fa ñuy jànge kon ñoom tamit nañu laxasaayu def li leen war ci njàng mi ba njàng mi mën a jag njàng mi mën a dox njàng mi mën a jëm ci kanam parce que ñoom fee ñu nekk tey bu ñu jàngul woon xëy na duñ fa toog kon nag nañu delloo Sénégal njukkal te jaarale ko ci askan wi ci njaboot gi loolu mooy warte yi impact bi mooy day nërmeel doxalinu réew parce que jàng dafa am solo wax naa ko sànq bu njàng amul rek xam-xam du ñëw bu xam-xam ñëwul doxalin du sell du baax kon te nag il faut njàng mi sel il faut njàng mi baax il faut njàng mi jag toog bañ a jàngi baaxul gënul kon nañ ci jóg taxaw ñun ñëpp ku ci nekk def li nga war a def jàngalekat bi parent d'élève bi gouvernement bi ak élèves yi. en tant que parent wax naa ko jéem a toppatoo suñu njaboot jéem leen a encadré saytu leen wan leen ni leen njàng moo ëpp solo lépp loo gis kon nañu jàngi beneen bi itam ñu laxasaayu fekk jàngalekat yi ànd ak ñoom parce que tamit mënuñu leen a bàyyi suñu njaboot kese bàyyi leen ak école bi kese nañu leen di jege di xam seen i mébét seen i njàmbat seen i tolof tolof. ñu ànd ci ak ñoom pour xeex ko pour loolu aussi mën a saafaraw ñun aussi parents am nañu responsabilité ci liy xew ci njàng mi gouvernement bi aussi la même chose ñoom la ñu dénk Sénégal ñoom la fi yàlla tegandi kon nañu waslu àq delloo njukkal réew mi Sénégal suñu nawle la kon te nag lépp lu mu ñu joxoon lépp lu ñu defaloon war teef la ci ñun pour ñu delloo ko ko delloo ko askotam delloo ko ak njabootam loolu mooy li gën loolu mooy li baax en tant que parent Ndefleng Dada maa ngi woo ñëpp yàlla suturaal ñu yàlla jàmmal ñu yàlla aar ñu defal njàng mu sell mu mucc ayib suñu njaboot ba réew mi mën a gën a mucc ayib gën a jëm ci kanam.